mu jàng Muhammadu Rasulullahi yaay borom ndam bi ñu xam ne nag sëriñ baa ngi waaja dugg si kon ñu déglu sëñ Mamour Sougou Sering baa ngi noonu nag di dugg ci ci tante bi waxtu wi tembe mbolo mi yep ñëpp ngi jog taxaw di accueillir di tatagal ki nga xamanteni moy serigne khadim Xaadim mum Lo mustapha Lo mum serigne modoyse gis ngeen ko nonu serigne bi mi ngi nonu and ak ñi nga xamanteni ñoy wa def di discipline force foi nga xamanteni ñoy sécurité bi ñu ngi nonu dar ko nak and ak mom serigne bi wara jublu nak yek ci fi nga xamanteni nak moy kaw tribune bi fekk fi nak fekk na bobu waxtu wi tembe kilifa yep ñu ngi ci kaw nga xamanteni gis nga serigne ngi di nuyu mbolo mbooloo mi mbooloo mi yëpp yëkkati loxo ku ci nekk bëgg koo seen sëriñ bi taxaw nag jàkkaarloog ñoom nuyu leen ziar leen waxtu wi tembe am na ñoo xamante ni lii rek la ñu soxla buñ ci gisee rek doy na leen sëkk ndax gis sëriñ bi guddi gàmm gu mbir la moo xamante ni mbóot mu réy ngi ci kon nag sëriñ Xaadim Lo Gaydel la ngi noonu fekk na autorité yi ak kilifa yi ñoom ñëpp ñu toog sëriñ bi noonu la dugg see ci tant bi nga xamante ne ñu accueillir ko ngeen dégg Mamor Suguni wax Muhammadu Rasulullah yaay borom daam kon nag gis nga mbooloo maa ngi noonu googu ñu déglu ko. jébbaloo ka siyaare na ci muxtisaatam jinne ya daan na fa ñëw di jébbaloo dellu yàlla bokk na ci muxtisaatam daaba ñu masawar loo ñàng ñàng ni nuut ba mu bokk na ci muxtisaatam daaba jumma sawar du saw du neefar ngir war maa ko yallaaw bokk na ci muxtisaatam benn weñ du ko dal du dal ca du yër néegam ya yallaaw bokk na ci muxtisaatam yàlla daana yabal jibrilu muy indi ay laxbaaru yàllaaw bokkoon na ci mucjizaatam rañaanan ba mu dem ilal samawaati mu jibrilu yàllaaw bokkoon na ci mucjizaatam alburaax ba mu warono muy daw ba dem asamaaw dem del si yàllaaw bokk na ci mucjizaatam fépp suuf ba mu jox keroog xunay nati mu rey noonam ya yàllaaw bokk na ci mucjizaatam dem fa naani këram buy ñaan mbiram néeg ba naan amina yàllaaw bokk na ki mos ci zaatam ndaw si ñëw di ko nax di gaana gaanalu far dem gaana yàllaaw bokk na ki mos ci zaatam waa ju ñëw ko nax di wopp woppulu far dem faatu yàllaaw bokk na ki mos doj wu sew ba mu far ñu dégg doj ba muy sàbbal foofa yàllaaw bokk na ci mux ci mburu ba mu yor lekkal na junni yu xiifoon booba yàllaaw sëriñ xaadim loo gay deel le sauveur de la jeunesse l'héritier attitré de borom Touba Khadim Rasoul waye seigne modlo isa isa djey Mor Khoudia Koumba fal Koumba Fall ànd masambante ceebu sa maam moo jàngal xaali moor anta seli alquran loolu rek nga bokk ak sëñ mu talaa xaadim rasool soxna tuuti fàttak ko sàmma mareema masambante ceebu medun pende bu ye mattar numbe war xa jaan daa juge njaañ aram joor bàyyee ko laax penda faal kër maa joor isa jéy sa maam bàyyee ko kokki ñu jox ko lat joor mu am ci moor isa mu dem ci maxa woote gàmmu lat joor di baayam sëñ kokki di maamam mu jàngloo leen téere bayloo leen tool fayloo leen lempo moom chef de canton wa jiw wa xàcc ñu jox ko xaali moor Anta Seli Ballay Saburi Serigne Mbacke Maram Mamadou Xayri Mamadou Kabir Abibulaay Saayib Mbacke almaami soxna Fatma seen maam seen galas Mbacke Mbacke yi Fuuta lañ jóge ci réew mi ñuy wax mbeelo wa min gànnaar ci gàddu gi ñuy wax àll mi du naan la sarafa waa xam seen xaadim ngay del sama sëriñ sa cër bu wér la a jolof dañ làkki olof mu am ci ma sàmba yi sa jéey mbàyyi Mamour Aminta Amar ak Moussa Aminta Amar ji waxaati ñu yóbbu ko ndaam sa kër maam ca daam ku ca jabu moom ngay del xujja kumba sira xujja kumba daaro xujja kumba yàlla xujja kumba faaloo xujja kumba Kumba Sayib Khoudia Kumba Maam Dieng Khoudia Kumba Anta Seko Khoudia Kumba mu am ci Ibra Issa Dieye Amsatou Issa Dieye Abdou Karim Issa Dieye juróom benn doom sa dem Khadim Rassoul nous devons profiter de tes bienfaits et te connaître aussi notre mission c'est de lui apporter nos œuvres et nous purifier ainsi L'engagement de Bamba pour notre cause demeure pour nous la plus noble des choses. sama sëriñ soyons honnêtes. car l'honnêteté est certes synonyme de pureté. Mère et Foulot proviennent de l'océan. Mère et Foulot proviennent de l'océan. Cheikh Bamba est certes ce grand océan. préparons aujourd'hui le retour.

ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ci ak santam di jiital ci nuyu gi nag sama xarit suñu sëriñ sëñ xaadim loo gaydeel bu ma nee sama xarit ñu bëri dinañ foog ni waxu politicien la walla waxu ministre la nga xam ne def fi ñëw ngir tànku politique ngir tànku kuy sàkku euh, ndombal tànk buñ ko dénk mu yàgg ci moom waaye sëñ bi kat dama ko xam bala dara di am ñu fii ci jamono yoo xam ne ñun opposition lañu woon mu nit koo xam ne nga nekk opposition nga nekk pouvoir bu fekkee ni ràññee ci na ci yow ay màndarga yoo xam ne màndarga moom moo xam naka la koy ràññee mais xëy na yenn qualité yi da lay xëcc def la xaritam man it man gis ko bis ba ma ko njëkkee gis am li ma sentir ci sama bopp loolu du waxu politicien parce que tey dox naa fu bëri toog naa bërëb yu bëri te képp ki ma xam xam ne du lu may wax pour wax ndax neex jataay ji rek moom mi xam na li may wax ni euh, loolu yàgg na àddina di dox ba tey jii nii yàlla def euh, président Macky Sall nekk au ñu def conseil de ministres tey mu ne ñu ku nekk ci yéen na tànn fu mu war a dem am fu mu fa représenter gouvernement bi man liste bi ma bo def ma boole ci kër seen xaarim loo gaydeel Bagdad lu waral loolu moom xam na ni mës naa ko wax ba ñu toogee ci ay jataay ma ne ko li ma gën a yéeme ak bég ci li ngay jëf mooy ñu bari dañuy tànn taax yi walla fu gën a am keppaar ci biir dëkk yi nekk ci wetu résidence quartier résidentiel yu gën a bien wut fa fu gënu taaruwe nekk fa jege banque yeeg banquier yeeg homme d'affaires yi bu guddee ñu lay seet si discrètement waaye yow danga tànn foo xam ne dara amu fa woon nga gis jeunes yoo xam ne buñ leen bàyyi woon xëy na ñu ci gën a bari ci naka nu noonu la ñuy nekk nga ñëw kàddu yi may wax man rekk ak moom ci biir néegam te loolu yàgg na ah donc ku koy def ñëw sànc ci bërëb bu mel nii fekk fii amul sa xëy na garab amul ay taax yu bari di liggéey di liggéey ba lii taxaw fi tey donc kooku liggéey a ko taxoon a jóg te leneen li ma ci jàngatoon te waxoon naa ko xawoon naa ko jund keroog àdduna di dox ba amay yu ko firndeel mooy bu fekkee ne yu mel nii def nañ ko di ko wéyal ci biir senegaal am na ay tolof tolof comme yu xew Mali du doon am incha allah bu ma waxee loolu nag ngeen mun a xam fu ma bëgg jublu ba ma président neewee nag fan nga jëm ma ne ko Thiès mu ne ma bu nga boo demee neel sëñ bi mu ñaanal ñu ci actualité yi am di gërëm di sant mbooloo mi di rafetlu disipline bi président dafa ne moom civisme ak disipline Le bëgg développer réew mi fu civisme amul fu discipline amul réew mënu fa développer bu ñëwee fekk fi discipline bu mot sëkk gis fi ordre bu mot sëkk dégg ñu fi coow dégg ñu gis ñu fi désordre loolu dañ koy rafetlu di xam ne loolu bu fekkoon ni Sénégal mën nañu organiser suñu lépp ci anam yu mel nii bu ñuy dem ci transport bi defee ko nii bu ñu demee feneen defee ko nii ci jàkka yeeg feneen ni ni ma ko ci bërëb bi incha Sénégal dina teel a développé parce que lépp lu discipline ak ordre àndul euh, du mun a dem ci kanam donc sëñ bi di sàkku ñaan di ñaan yàlla ñu fekke ay déwéni déwén fii place bi incha allah loolu lu ma gëm la buñ fu ñëwoon déwén dina gën a dina gën a yàññ yàlla def ko ñu. yàgg fi te wér yàlla na la yàlla fay ci liggéey bi ngay def ci askan wi wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaw kon ministre bi foofu la daanelee kàddoom nag gis ngeen nag ñu déglu nag kàddu sëriñ bi sëriñ Xaadim Lo Gaydel moom sëriñ Moustapha Lo moom sëriñ Modou Lo Issa bu tontu ministre bi na ña fa nekk dafa am lu ñu gëm amit lu ñu tudde seen bopp nee nun ñu nekk fii nee na ñu nekk ay murit ak i tiijaan ak i xaajiriya nee na dara nag du dévier conscience li ñu gëm ndax nee na ña ñu gëm ak lan ñu jàngal démb mooy lislaam ju ànd ak jàmm ci loolu rek la ñuy nekk kon nag sëriñ bi nee na mi ngi lay yónniwaat nee na nga santal ko président ndax nee na ci màggal gi dafa doon ñaan mu jéggale lépp luñ ko def te xool ci réew mi ñu ko dénk barki démb bi mu ci tontoo wax ni nungu na loolu sëriñ bi nee na xolam sedd na kon nag nee na nii mujj Baxdaad nee na président Macky Sall bi muy mujj Baxdaad nee na keroog ñoom ñaar ñii ñoo ànd moom nag Nena Mom moom la gën a féetewool nee na kële xaritama at yu yàgg waaye nee na dafa bari lu muy problème bi président taxaw bëgg jël jeunesse bi emploi waaye nee na nag na ci waa Cees ëppale te yow nee na na nga ko dox ba xale yi liggéey ci nee na sunu aéroport bi ci jas bu àggeet nee na mi ngi ñaan président it jeunesse bi ak xale yi Cees yi ñu ëpp ca sëriñ bi nee na loolu mi ngi koy ñaan nee na bu loolu wéyee nag nee na dénk nañ la lu diis waaye waaye nee na attan nga ko te yàlla it dana la jàppale ndax sab yar ak sa wayef ak sa jikko ju baax ak nekk goo nekk nitu diine nee na looli yi dina la jàppale yàlla dina la suturaal kon nag sëriñ bi nee na dénkaat na mbokk taalibe yépp ñu jàppaleel ko cer cerno taxaw ko nee na li ci nekk ci wàll wi ñu ko dénk yàlla def ca jàmm ndax bu ñu nee ministre transport rëy na lool nee na muy yóbbante nag président ak yow mi nga xamee ni yaay ministre bi nee na problème waa Transrail nee na cheminot yi nee na ay mbokkam lañu nee na ñu ci bari yaak ñoom yéen a bokk toog ci tribune bi nee na seen problème sëriñ bi nee na bokk na ci ñi koy dox waaye nee na tànk yi ngeen ciy jéego mu xam ko ci yow xam ko ci président nee na day ñaan mu gaaw ndax wóor na ko ni céng day yéen a ngi ci kon sering sëriñ bi nee na na ngeen leen jàppale ndax nee na loo lii lu ko itteel la ndax fii mooy te ngi fi kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant yàlla di sant Maulana Cheikh Ahmadou Bamba di ñaan yalla yàlla dolli sa sutura yalla dolli barke Jerigen Jeff. jëf waaw sëriñ bi